vraiment une suñu mbégte ci réception bi ñu réceptionner pirogue ambulance bi donc bien nga qui ben ci projet bon xam ni USAID et ko financé ñu tuddee ko Ndamir donc ci lañ ko planifié on ñu finance ko donc après nous liggéey ci donc occasion là pour me euh, remercier commandant base navale pour apporter nous bi ñu indil pour nous mener a faire pirogue ambulance bi maintenant pirogue ambulance bi njëriñ évacué bi évacuer malade la mais également nous

dina permettre stratégie euh, avancée également ñu dem fekk leen fi ñu nekk donc yobul leen soins yi nga xamni ne soxla nañ wa jafé jafé yi mooy loolu parce que île moom euh, du du terre ferme nekul fo xam ni moyen de transport yi bari nañ bu dee bu dee bu dee terre ferme la moyen de transport yi bari na am na oto am na euh, moto am na moyen bari na moyen de transport et mën nga dox par contre bu dee ci île mom pirogue rek mom moy mëna permettre nga accéder ci structure sanitaire donc euh, lol momay véritablement jafé jafé yi nga xamni ñu dëkk ci île yi moom la am. benn gal ñëw té maire bi diggoon ñaar gaal yéen a ngi xaar. voilà donc euh, maire bi planifié na pour euh, wut benen gal et je crois que lolou bu amé dina gën a yombal affaire bi parce que benn gal bi rek mënu couvrir île yi nekk fii maintenant beneen gaal bi ñëw dina permettre ñu mëna a desservir Cachuan Ourong Wendaay et bu boba jafé jafé yi nga xamni peut-être mom lañu am aussi bien ci évacuation sanitaire wala ci stratégie avancée donc jafe-jafe yooyu dinañ wàññeeku bu baax. oui galancor bi mooy pirogue euh, moyen la laaj pour nga am pirogue il faut nga moyen bu ngeen xoolee pirogue bi mi ngi fi woon dañ ko abandonné woon yàgg na fi mënuñ ko jëfandikoo amuñu woon moyen pour que pirogue bi mën ko réhabiliter équiper ko donc loolu moom moo bon financement bi ñu USAID defal moo ñu permettre pirogue bi bu ngeen ko gisoon avant ak ni mu mel tey nga véritablement def nañ ci ay moyens. gàllankoor yi ñu am nag moom mooy moyen yi xam ne moom la ñu mën a euh, defaree pirogue bi maintenant léegi nag défi bi ñu am moom mooy mën a entreteni pirogue bi mën ko toppatoo ni ñu ko war a toppatooyee que pour que population yi mën a gis bi te lu yàgg yàgg yàgg. xam nga mooy problème accessibilité population population bi bu ñu mënul jot si ci fi ñuy fajoo mën nañu bañ a ñëw nga war a ñàq sa doom amoo loo ko foo amoo loo ko yóbboo pour dem doo dem loolu moom moo tax ñun ñoo war a def de sorte que. dañuy jege population bi donc té pirogue bi dinañu permettre ñu mëna a ci village yi nga xamni dañuy am ay pour ñëw donc pour vaccination bi pour consultation prénatale pour planification familiale etc.